ñan nga koy adressé. Euh, comme euh, suma xarit yi nga xamante ni au niveau national depuis deux ans dañu décidé mettre en place euh, benn plateforme bu tudd renfort rencontre nationale des force républicaines pour le travail li tax ma leen di consacrer le dernier moom mooy depuis deux ans dañu travailler dans le silence euh, en ayant trois objectifs premier objectif bi mooy jàppale APR ak benn Bokk Yaakaar ci gestion des frustrés parce que frustration yi dafa bëri et frustration yi bi ñu ko analyser contrairement à ce qu'on du rek ay ñàkk poste waaye c'est surtout euh, absence su cadre d'épanouissement et d'expression politique ñu offrir leen ko deuxième objectif parler à des gens qui sont nombreux très nombreux dans ce pays et qui sont séduits par li Macky Sall di réaliser mais amuñ cadre bu ñu ko waxee wala nekkuñu à l'aise ci affaire parti politique ñu xëcc leen suñu biir ñetteelu objectif bi mooy opposant yi nga xam ne dañuy opposé wu rek parce que dynamique bi moo fi nekk wala waaye surtout kenn jotul wax ak ñoom depuis deux ans ñu nekk ci liggéey boobu ba fan yi ñu euh, yëgal ma ne vraiment bëgg nañu euh, daje euh, manifester wane d'abord li ñu jot a liggéey ci ñaari at yi au niveau national waaye surtout exprimer def seen hommage ci président de la république euh, ndax liggéey bi mu fi jot def exprimer seen soutien au Amadou Ba ñu nangul ma nag ne euh, quoi que am ñu ci bokkul APR loolu yëpp dañ koy jël sottil ko APR parce que man APR laa bokk APR lay liggéeyal te APR mooy d'ailleurs euh, mbubb bi nga xam ne ñun ñëpp moom lañ sol kon euh, ndaje boobu ñu ngi koy def euh, muy ay presque ay assises nationales pour ne pas dire rencontre nationale boo xam dañ koy amal le 11 novembre ma ciy remercier ñooñu jàppale woon ma ci liggéey boobu depuis deux ans. ce renfort boobu ça ne sonnait pas comme une tentative de. de de rébellion. man lu ma def rek gars yi ne rébellion. non ça mais ça renfort bi nga créé parce que quand même euh, et, et c'est la nouvelle mode. je vois que Benoît Sambou qui est le chargé des élections bàyyi di ma euh, comparer toujours non non xaaral rek Benoît Sambou qui est le chargé des élections de l'APR teg na en place une plateforme euh, inclusive yow nga nekk euh, euh, euh, chef APR Géej département Guédiawaye tamit nga teg en place une une une une structure parallèle et d'ailleurs contexte bi nga ko tegee en bi bi nga ko mettre en en place c'est-à-dire bi ñu génnee élection yi parce que je sais que mm-hmm. nangu nga sa défaite à cette à cette élection là mm-hmm. mais am nga ci lu la lu la metti parce que am nga les preuves probantes Euh, que am na ci ay manœuvres yoo xam ne c'est si sa parti la jóge waaw mais euh, nga créé lu mel noonu. c'est légitime qu'on se pose des questions yu bëri yooyu boole yu bokkul d'abord man euh, su ma amee lu ma métti tamit ci élection yooyu exprimer naa ko ci biir parti bi ña ko waroon dégg dégg nañ ko ñëwaat naa fi tey waxaat la ko donc ñàkkuma nu ma ko fejee te du ma ko fej loolu di ko dénoncer mais dañu nekk ci réew moo xam ne léegi politique amatu fi. li ma wax politique amatul mooy débat politique amatul opinion politique amatul loo yëkkati dafa am fu ñu lay féetale donte du nekk dëkk benn minute nit war na mën a xalaat quelque que soit frustration yu ma mën a am ma mën a taxawal dara pour di néewal doole liste législative bu Macky Sall ah, tey di néewal doole. mais loolu on est en politique xel politique rapport de force la. rapport de force la waaye même tey su ma yàlla mayoon doole boobu sax quoique sori naa loolu. mais du ma jël doole jooju di ko utiliser contre un régime d'abord euh, de par les liens familiaux mais ensuite régime buy liggéey li nga xamante ni ñëpp ñu ngi koy rafetlu man awma benn intérêt pour affaiblir régime boobu donc mosuma xalaat mosuma am programme naan damay teg benn liste parallèle ci législative contrairement à ce qu'on dit mosuma xalaat te wax naa ko ci médias yi ne damay nekk candidat à la présidentielle parce que d'abord du suma objectif ensuite xalaatuma ne tey jii su ma nekkoon candidat à la présidentielle am na chance jouer un rôle majeur te nag su ma demee bay dugg ci dara day fekk ma mën fa jouer benn rôle boo xam day essentiel waaye di dem pour bokk après comme gars yi ñuy def mën a négocier ak yenn candidats yi ma nekkuma ci yooyu je suis dans un parti maintenant parti bi aussi wax dëgg yàlla tereegul euh, nit ñi di am seeni xarit yi ñuy organiser euh, am na ñu bëri ñu nekk ci parti bi ñu am ay mouvement donte ñenn ñi nag dañ koy def te duñ ko wax man nag damaa mënewul noonu man li may def dama koy wax mu feeñ suñ yenn saay nag ñu yëkkati yar bi ne ma non bul exagéré ba fii ma xaw a taxaw te loolu xew na sax ci ci renfort à un moment on a eu peur que es ce que moment bi du xëcc sax ay militants wu APR alors que loolu du woon objectif am de sorte que à un certain moment dañu def pédale douce euh, mais daal ñun ñu ngi liggéey ci biir APR di liggéeyal président Macky Sall fal Amadou Ba. alors